lii ñu fi indi tay nak moy clôture caravane bi nga xam commencé won nañ ko yof li ñu def suñu bop lañ ko defal xalé yi de ngeen li leen monsieur le maire wax ma delu ci wa di wax ne yeen ay xalé yeen am doole yeen mëna dugg ci nit ñi protéger nak suñu papa yi ak suñu mam yi ndax ñoñu kat kon bu ñu ko amee rek nit a leen ko indi jox leen ko nañu def lépp nag ba protéger suñu personne du troisième âge yooyu ni ñu koy waxee ba dara bañ leen a jot yéen nag xale yi yéen ay ëllëgu Sénégal yéen a war a jàpp ci liggéey bi ànd ak ñun ñu nekk ci seen gannaaw ngeen di def liggéey bi ngeen war a def. lii ñu indi fii tey ci Gorof xeeb nañ ko sax wax dëgg yàlla monsieur le maire nee na bari na waaye man xeeb naa ko waroon nañ mën a indi lu ëpp lii waaye nag yoon du yem ci benn. te lii dañuy ñaan yàlla rek mu gaaw a génn ci àddina bi ndax bu ci génnul itam dafay dellu siwaat ci ñun di sant bu baax suñu partenaires yi ànd ak man nii tey ndax jot amul de waaye wax dëgg yàlla bàyyi nañu li ñu doon def yëpp pour ñëw ànd ak man fii ci Île de Gorée ñu ñëw clôturer campagne un million de masques boobu ñu doon def di ci boolewaale sensibilisation di fàttali toujours nit ñi mesure barrière yooyu mooy takk masque surtout takk masque nag parce bi daal moo ñu mën a dimbale ci wàllante bi ndax xam nga ñun sénégalais dañu bëgg ay xew gis nga fi mu nekk bañ ubbee ba léegi yaa ngi commencé gis tant yi ci mbedd yee nit ñiy dem soluñu masque kon nañu respecté mesure barrière yi muy takk seen masque raxas seen loxo ak saabu man. waaye loolu daal yaakaar naa ne buñ ko defee danañ fexe ba jàngoro ji dootul law ci dëkk bi di ñaan yàlla mu génn ci àddina bi monsieur le maire jërëjëfati ci accueil bi. lii ñu indi xeeb nañ ko waaye ni ma wax rek beneen yoon danañu gën a def gën a def effort. li tax bariwul bariwul noonu ni mu bari woon wax naa ko budget bi bañ koy voté boobu xamuñu woon ne Covid dana am Covid bi daf ñoo dab waaye yàlla suturaal nañu ba ñu am ay partenaires yoo xam ne ñu ngi ànd ak ñun di ñu jàppale bu baax ñoom itam xam nañ ne lii ñuy def seen réew lañ koy defal ay patriotes lañ. ñun fu ñu fi toogee askan bi moo ñu fi waa moom moo ñu fi te maire de Dakar ak équipe am ak conseil municipal ak administration dañ ko comprendre ñu ne ci jamono bi mu gën a méttee. war ñu toog xaar nit askan bi ñëw di leen fekk si pour ñu dimbali leen dañuy dem fekki leen fi ñu dëkk si seen gox goxaan si seeni kër pour jaglal leen li nga xam ne moom lañ leen yéenee pour mën a euh, ñu ah, ah, jox leen kaaraange ci li nga xam ne mooy euh, mbas mi nga xam ne moo sonnal ñëpp si réew mi yëpp rawatina Dakar li may def rek mooy ci turi waa Gorée yëpp askanu waa Gorée yëpp turi conseil municipal bi euh, jox leen gërëm bi gën a yaatu bi gën a mët

jàppale fois yi pour que ñu mun a euh, euh, dund te tegeeku li nga xam ne mooy euh, jafe-jafe yi ñu jànkonte woon parce que geste bi ak démarche bi namoon nañ ko namm nañ ko te li ngeen def defe naa askan bi na si am jàngat bi nga xam ne mooy ñi ñi fal ñoom lañ fi nekkal dem fekki leen ñëw ba gore tey nii du nekk lu yomba ak programme yi nga xam ne am ngeen ko mais def ngeen ko ñëw fii di ngeen dugg si kër yi ak ñi nga xam ne mooy volontaire